di nuyu bu baax euh, ci li nga xam ne moom laa euh, bëgg waxtaan ak yéen ci lu gàtt mooy li xewoon démb assemblée nationale jaaxal Sénégal yëpp ndax dañu defe woon ne président Macky Sall bu bàyyee affaire troisième mandat vraiment stress bi dina wàññeek waaye dafa mel ni président moom ci stress la ñu bëgg a yóbbu ba février 2024 parce que président boo xam ne yow dangay dem février luy sa yoon ci vraiment ay tripatouillage de la constitution moom dañuy xaar lépp ci moom ba mu des di changer constitution ci kuy dem février kon ñu ngi féliciter vraiment député yi nga xam ne démb am nañ taxawaay ba ñu war a am muy député Benno Bokk Yaakaar ak député euh, opposition ndax li wolof di wax mag du fecc yàlla naa dee ndax andi projet boo xam ne la ca ne woon mooy président saa yu ko neexee mu nangu seeni poste député te nga xam ne ñu ne buñ ko xasee ba jël Euh, voilà amoo benn garantie ne da ngay ñëwaat la ca ëpp chance sax mooy dootoo nekk député kon ñoom amoon nañ fullaak fayda bu toll nii ñu indil leen loo xam ne lii méngoowul ak seen intérêt waaye méngoowul aussi ak intérêt réew mi ndax dafa doon li ñu naan une réforme bu ko defoon bu jàlloon déconsolidante de la démocratie ma fàttali ne président Macky Sall ci boppam moo indi woon loi boo xam ne bii day tere kenn mën a tas assemblée nationale ci giiru ñaari loolu mooy indi aussi stabilité ci réew waaye bu fekkee ne réew moo xam ne saa yu président bi yeewoo rek xool kanamu député yu neexu ko mu ne tas naa assemblée ba moo kon kan kañ la ñuy liggéey kañ la ñuy liggéey te loolu xaaruñu ko ci président de la république président li ñuy xaar ci moom tey su ma naataango yi dinañ ci waxtaan mooy mu bàyyi ñëpp doon candidat mu fexe ba réew mi dal mu libéré aussi sunu détenus yi loolu dina am ñu ci wax dinañ ci wax euh, plus en détail mais ci point bii nga xam ne moom laa waroon a waxtaanee vraiment dañuy aussi gën a kañ suñu député yi suñu député yi dans leur ensemble parce que assemblée nationale assemblée réew mi la ku fa toog ngay opposition wala ngay non inscrit wala ngay euh, euh, benn Bokk Yaakaar askan ba la fa yóbbu kon toujours bàyyi leen xel ne vraiment intérêt askan bi ci ngeen war a dox rawatina nag président boo xam ne dans six mois mu pare monsieur le président de la république yow affaire troisième mandat jeex na waaye bàyyil mandat jàmbur yi c'est pas parce que yow it amoo troisième mandat nga bëgg a nangu mandat wu jàmbur yi mandat wu député yi ñoom ñoo ko moom voilà foqati nga sama bos waaye kooku beneen débat la waaye ñii nag wax dëgg yàlla euh, bàyyi leen seen cinq ans euh, wala en tout cas bu pré beneen président ñëwee fileeg mois de juillet kenn mënut a nangu seen i mandat kon jaraw lag député benno yi ak député opposition yi nga xam ne nanguwu leen loo xam ne kenn waru koo nangu as gor nag doo nangu loo waruta nangu kon ñu ngi leen di félicité di leen kañ di wax président Macky Sall mu génnee vraiment loxoom ci constitution bu muy bëgg a voilà caxat caxate te dans six mois ci lay dem li ñuy xaar ci moom mooy li ñu wax mooy vraiment mu dalal réew mi génne stress bi nga xam ne permanent bi mu bëgg a dugal réew mi loolu kenn mënu ko nangu. kon ñu ngi féliciter député yi ci wàll woowu te la mu war def moom xam na ko mooy mu def ko problème yaa fii bari bay bëgg dee voilà na six mois yi nga xam ne moo ko dese ci bopp réew mi. mu liggéey lan ca war a liggéey nanu ko waxee su ma naataangoo yi dinañ ñëw ci yeneen point yi parce que amoon nañ ñetti point ci suñu plateforme bu ko defee vraiment en février mu teg dossier yi dem noppalu waaye affaire constitution article 87 ak xaw ma beneen ban article kooku yoram nawatu ci na bàyyi février kii ñëw ba juillet kenn mënta laal assemblée nationale bi euh, bu ko defee ñu xool aussi fan la ñu war a jëme euh, suñu démocratie waaye lii mu bëggoon a def Euh, vraiment heureusement député yi am nañu fulaak fayda boo xam ne bii nanguwuñu ko ba moom mi ko indi woon da koo mujj retiré loolu li mu koy wan nag mooy euh, daanaka appam jeex na ndax kuy bëgg dem nag ak ki nga xam ne day toog lu yàgg bokk nu bokk nu bokk bokk nu pouvoir loolu aussi bu jàngat ci wàcce lépp bàyyi politique politicienne bi euh, def li nga xam ne war na koo def février incha allah mu organiser élection yu jaar yoon bàyyi ñépp ñu participer libéré xale yi dinañ ci dellu si euh, bu ko defee Sénégal continuer yoonam ci wàllu démocratie ñu ngi leen di gërëm. oui je voudrais euh, vraiment féliciter no députés euh, pour leur attitude d'hier ils ont refusé euh, vraiment. euh, ce projet de loi qui une loi scélérate. Parce que le président de la République va quitter la tête du pays en février 2024. Mais il semble vouloir nous installer dans une spirale sans fin de stress. Les gens estimaient que euh, il allait apaiser la situation après avoir euh, déclaré qu'il ne serait pas candidat. Mais euh, voilà, mes camarades ici reviendront les autres points, sur les détenus qui sont toujours en prison, sur euh, la sélectivité qu'il veut amener. dans la participation qui devrait être une participation inclusive, etc. Les autres points seront développés. Mais pour ce qui concerne moi, mon adresse, euh, je voudrais vraiment inviter nos députés, qu'ils soient de Bernard Bokoyakar ou de l'opposition, à avoir cette stature que tout le peuple sénégalais a appréciée hier, c'est-à-dire avoir refusé une loi déconsolidante pour notre démocratie. Un président qui part dans six mois n'a pas à changer de constitution, l'a Un président qui s'en va, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il apaise le pays, mais qu'il arrête de nous mettre dans ce stress infini. Donc je voudrais féliciter vraiment nos, nos députés et que désormais, ils aient cette attitude. Et que seul l'intérêt du peuple soit leur préoccupation. Surtout pour un président qui s'en va. Ça, ça s'adresse particulièrement aussi à mes anciens camarades de Bernard Bokuyaka. Vous n'êtes plus sous sa tutelle. En février, il ne sera plus là. Donc vous n'avez plus à avoir peur. Libérez-vous de cette peur, c'est fini. Dans six mois, il partira. Maintenant, concentrez-vous sur les intérêts du peuple, comme vous vous êtes concentré sur vos propres intérêts. comme vous avez défendu vos intérêts, c'est comme ça que vous devez défendre les intérêts du peuple. Nous vous encourageons à le faire. Le président Macky Sall, ça y est, c'est terminé, c'est un petit grand papier, vous n'avez plus à avoir peur. En février, il va partir. Donc, concentrez-vous sur les intérêts de la nation. Et Monsieur le Président la République, nous voudrions vous dire, vraiment, apaisez ce pays, nous avions été dans tellement de stress avec la mort de jeunes, vous n'avez plus à vous préoccuper de constitution. Ce n'est plus votre affaire. Laissez les mandats des députés tranquilles. Oh, vous n'avez pas eu votre troisième mandat, vous n'aurez jamais dû l'avoir, vous n'aurez même jamais dû y penser. Mais ces députés, laissez leur, mandat. Voilà, Voilà, on reviendra à la normalité républicaine qu'on retrouve notre sérénité, que chacun participe à la démocratie, participe aux élections, que nos jeunes soient libérés, je crois que ce sera détaillé, et que le Sénégal poursuive sa marche vers de la modification de l'article 87, dans le sens d'une de la démocratie. Et ça, il est heureux salaamaaleykum euh, ñu ngi leen di remercier bu baax d'abord euh, remercier leader yu f yi nekk ci jotaay bi euh, di préciser rek ne F24 combat am wu ñu ko woon rek ci xeex troisième mandat xeex bi ñu doon xeex pour Macky Sall bañ a nekk candidat peuple bi yëpp lañu ci félicité félicité ñëpp ñi nga xam ne ay démocrate lañu ci Sénégal te jógoon xeex combat boobu am nañu ci ndam mais li ñu waxoon rek mooy il faut rester prudent parce que dafa yàgg ci njublan tàmm njuuj njaaj kon génn ca noonu yéen xam ngeen ne du yomb kon restons vigilants et ci vigilance boobu moo tax ci biir F24 ñu ngi rappeler kenn ku nekk taxawaay bi mu war a am ci ñu préserver lépp lu jëm ci suñuy liberté parce que Macky Sall xam na ne jeexal na xam na ne yëf yi jeex na léegi ñi ko xañ la mu bëggoon def ñoo ñu la bëgg jëflanteel parce que yéen xam nga ne miix sedd la nit la kuy ruminer colère te li mu jàpp du ko bàyyi. madame le premier ministre dafa baax rek mu ngi wax tigre en papier mais Macky Sall gaynde simb la xam nga gaynde simb day solu di gaynde gayndelu ñi muy dàq xam nañ ne du gaynde et donc ci biir jeu boobu moom day considérer boppam gaynde mais moom Macky Sall rek moo xamul ne sénégalais yi pare nañu ci moom y compris ñi nga xam ne ñu ngi séq ak moom wala ñu nekk ak moom ci benn lang parce que madame Aminata Touré wax na ko léegi li xew démb assemblée nationale c'est un signal fort signal boobu nag daf ñu interpeller ñun ñëpp pour que suñu liberté yi mu jóg pour entraver ko parce que am na police parce que am na gendarmerie parce que am na une partie des magistrats yu nga xam ne nangu nañu nekk bras armé ñooñu nag léegi ñun sénégalais yi ñoo war a jug pour wan leen ne suñu doom yi ñu tëj ci kaso yi suñu mbokk yi ñu tëj ci kaso yi suñuy àndandoo yi ñu tëj ci kaso yi te wéeruñu ko fenn il faut mettre un terme à cela ku ne gis na week-end li xew ci investiture bu Pastef bu président Ousmane Sonko ku ne xam na ne Macky Sall noonu lay doxale fàttaliku leen en juin dernier bi ñuy def investiture bu gëm sa bopp ak Jidda Caaroy Kaw administration territorial la ñu utiliser pour saboter ko bi F24 waree def dialogue du peuple yéen a ngi koy fàttali ci lieu privé dañ ñu fa fekk génn ñu fa ñu dem siège Malick Gakou ñu fekk ñu fa ak détachement gendarmerie génnewaat ñu fa kon loolu mooy man buur su ma nee fii kenn du fi teg ndawal faw ngeen respecté ko kon xam ngeen ne moom Macky Sall buur la jàppe boppam li xew bërki démb siège u PRP bu président Déthié Fall yéen ñëpp gis ngeen xëy suba ñu indil leen ay gendarme teg leen ci buntu siège bi barricadé ko ba kenn mënu fa dugg et on a l'impression que seen stratégie maintenant mooy jël suñu force de défense et de sécurité yi di leen fooye gis ngeen kër góor gi fu nekk ñu teg fa ay barrières policiers yi taxaw fa ak gendarme yi mu mel ni sabar bu tas kenn mënul dem kenn mënul dikk uniquement pour indi jafe-jafe ci benn doomu aadama boo xam ne deful dara lu may taxaw jàkkaarloo ak Macky ne ko ànduma ci li ngay def bokkuma ak yow gis-gis kon li wóor mooy ñun ñi ñëpp toog fii suñuy liberté actuellement chaque jour Macky Sall mun naa yónni police am wala gendarmerie ñëw teg loxo ci ñun wala fàtt suñuy kër barricade ko bi ci mujj di El Malick Ndiaye dégg ngeen une histoire absurde audio boo xam ne benn sénégalais bu nekk Italie moo ko def tudd Mor kase ñu jàpp El ne ko yow ojo boobu yow yaa ko def jàpp leen ne li dal El Malick mun naa dal kenn ku nekk ci ñu li dal Biram Souley ba mu wax la mu wax dellu am grandeur ak ngor ne moom mu ngi jégglu ci kàddu yi bu ñu amoon njiit boo xam ne day jàppe boppam ni ko yàlla def bi Biram Souley waxee ne jégglu na ci Sénégalais yi ci la waroon génn ci kàddu googu mais c'est boo amee di jëflante ak nit koo xam ne xamul lu dul fitna ak rapport de force situation yu mel nii rek lay indi ñi ñu tëj ci prison yi wax nañu ci ñu ngi ci dellu di ci waxaat di interpeller la communauté internationale di interpeller kilifa diine yi pour que Macky Sall ñi mu jàpp ci kaso yi mu bàyyi leen ñu dellu ci seen kër bu ñu koy lim fi lay fii la ñuy des Bassirou Diomaye euh, Fadilou Keita euh, professeur Cheikh Oumar Diagne Karim Xurum Xaq euh, Pape Amadou Touré euh, bari na bi ci mujj dégg ngeen démb ay responsable yu opposition au niveau de la commune de Koki également jàpp nañu leen woo leen ci gendarmerie téye leen fa sonal leen loolu it jàpp nañu ne c'est des choses yoo xam ne il faut qu'on y mette un terme et bi ci mujj Euh, Aliou Sané mi nga xam ne ñu ngi koy menacé dindi liberté provisoire am parce que tout simplement bëgg nañu faagaagal f mais ni ñu koy menacé ci liberté provisoire am ñun ñii ci des ñëpp noonu la ñu nekkee ci liberté provisoire parce que à tout moment Macky sàll mun na dal ci suñu kaw Macky sàll mun na jël suñu liberté et loolu nous interpellons tout les Sénégalais pour que ñu mën a taxaw jàkkaarloo ak moom ba li nga xam ne Macky sàll bëgg na ko loolu dootul mën a nekk ñu ngi leen di gërëm merci